sëriñ Basiiru Mbàkke mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke nekk ci Touba Darou Minane ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28 gérant ba di sëriñ Xaadim Rasul Gueye ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله ah Cheikh Samba xanaa gënoon xam ah xam la ilaha illallah xam la ku baax barke yéen lan gis nga yéen lii rek moo tax tubaab bi raw ñu ah, de parce que ñun dañoo jógee bitim réew ñëw war a dallu fii mais mun ñu fexe ba noppalu mooy xëy di roose garab yi rek sama yoon nekkul ci loolu di wet li ko tur yàlla boo xëyee fi ngay nekk di sikkar di way kenn du mën a nelaw ëpp def de ah lan la ëpp naa def de ana bu ndaw bu xees bu ndaw si soxna si moom maa la ngeen xam nga nu may dama koy dagg la si Massamba sa turandoo Massamba damaa yore ICR yoon nekkul ci loolu tension diabète te man te bu ma xiifee rek damay attaqué. bu lay rey ma ne di nga dee. ëpp naa def de yaay Seex Masamba. maa doole yi nga yaay bind yaay mas. laa ilaaha illallaah xanaa ma wax tubaab bu ndaw tubaab bu ndaw tubaab ay waay taay kaa xet li nu laa ilaaha illallaah man damaa roseetul dara sax damay ba sama nijaay ñëw duma ma roose dara nekk ci kër gi la dafa mel takkalam mbaam damaa roseetul dara nekk ci kër gi xemmeem sa doole ji dina ma dara fii laay toog sama xarit sama yónni ko fii laay toog yàlla naa fi kenn dootuma joxe lekk fu ma jëm man am naa ne tey jii dem togo rek day day day ak ma ak ndax tëkk ba moom doo lekk dara doo xam xaw fu ma jëm de kajoor moom laax doog lay togg te man bekkaay mooy lan bàcc mi moom kër gi te ñëw fi yee nee naa daa woor si nee dootu joxati du kenn noonu moom da yàlla wala du yónni wala du yàlla du yónni waaye yàlla yàlla daa te képp kenn ak lekk suñu borom leelu kenn ak lekk waaye ni yaay may dama lijjanti ba pare moo gën waaye yow da ngaa sa nijaay nga wax di wax li nga kër waaye am naa kattan di nijaay tabaal xëyal nga roosal ma garab yi bantooy garab gu màgg di nit ñi màggut moom dalee na dogoo jur na nit ñi màgg ba pare bàcc bind ma ma bind laa yaskuru naas ku sant yàlla doo sant nit waaye nag bàcc bi jar naa sant ndam fan yëpp joxe farmaas bi beurre lépp mburu mi diis ak nen yi baa ñëwee ba léegi dégguma xarum mais nag mbaam yi nga rek laa fi dégg bàcc nag gépp gis na jën nag sëq dugal ci biir te go te gone gi li li mu ŋànk xelam mi dana ko def man boo ma sa bàccee saa nijaay baax na maa ngi dugg ci yow ñun ñu nekk kii la ndam ngay soo dee li fay courant bi coupé nga naan loolu doo neexal gone gee neexal ko wuta wuyu si nag kay te tubaabam bee bu waxee moom mu dama wax ak tubaab bi. waaw Bati. man de daa moo lu ma la bëggoon a wax ndaxte li xew ci kër gi yëpp dégg naa ko. tamit la nga doon def wax ji bu mu tax nga bàyyi ko dee def rek te yàlla tax ndax euh, yàlla ñiy def lu baax moo leen di fayal boppam. et sax ci weeru koor yi dangaa xam lu baax loo ci def rek dana koy fulal ay téeméer téeméer ma bëggoon na nga bokk ca gaayooy euh, am na ñu bëree bëri ci biir koor gi. dañuy jëlee seen xaalis bu baree bari di ko dépensé ci koor gi rek lu dul rek di bégal jaam yàlla kon nag yow loolu nga doon def bëgguma nga bàyyi ko bi yenn ne yoon jàppal fa nga jàppoon ay wax bu mu tax nga jénn loo doon def lu baax ndax lu baax yàlla rek koy fay. dégg naa li nga wax bu baax parce que ñun ay jullit lañ te mën a doon te képp kuy def rek na def te yàlla tax. Euh, li nga wax ni marqué na ma trop nag te dugg na ma trop te dégg naa ko bu baax a baax te incha li nga ma ñaan ne dinaa la ko may su ma doon def benn tey dinaa ko yokk fukk ngir yàlla ak sa jëm parce que gis naa la nga nekk xale ci kër gi mais xale bu yar bu la yàlla doo ko taxaw ko am lislaam <laughs> wax lu bàcc bàcc li nga ma ñaan la ko may lépp lu ma jàppoon bàyyi naa ko lépp lu ma leen doon defal dinaa ko yokk ci barke weeru koor ku tedd kii ndax weeru koor dafa rëy te dafa màgg lépp lu ci nit def rek yàlla dala koy fulal kon dégg naa sa wax bu baax jërëjëf kontaan naa. jàppal foofu daal. doo ko réccu de. c'est gentil. man nag maa ngi merci beaucoup jërëjëf. yàlla gudd fan. dégg naa rek koo foofu waaye dana jël péré dafa am ku fexe ba rek dana jël péré.